mesure présidentielle bi def lu dans la mesure où c'est une question de santé publique qui se pose et qui dit question de santé publique dit question sécuritaire donc c'est normal que nous jël des dispositions pour limiter les va-et-vient des uns et des autres pour essayer de limiter la propagation du du virus. situation est correcte, rek nouvelle comportement nouveau donc euh, nous avons réaliser que qui actuellement ni lëmbe na donc il faut nous ànd ak dal ba paré ak acceptation comme ça ñu mëna dans un avenir proche vraiment yalla mën fi jëlé mbass bi nga xamné mo ñu dal actuellement. gëm naa buñ topé toppee mesures ni ko président waxé yalla mëna nañoo sutural non seulement fi mu yem du avancer waye sax mu reculer ba jeex tàkk parce que itam mir bu ñëwé ni mu ñëwé rek non lañ koy jappé la Chine dañu jëlone ay mesures ñu respecté ko à la lettre mu deñ tout à l'heure maa dégg ñu né la Corée itam ñom waxuñu won confinement mais dañu waxone ni que nañ def nañ def test yi ñu pour tout le monde manam tracer les cas suspects ñu tracer leen gens. jaar fep ñu tester leen xol ils l'ont fait ils l'ont réussi kon à chacun sa façon de convaincre la pandémie Nous aussi mesure bi président jël c'est une façon parmi tant d'autres kon nañ ko respecter ñaan yalla vraiment épidémie bi ñu rey ko rapidement mu jeex. dafa jël

au moins def confinement comme euh, comme yeneen dëkk européens yi comme yeneen dëkk yi après ñu essayer parce que li tamit ba léegi day indi jaxaso parce que soo demee ci boulangerie da ngay gis gars yi di dankolo te lool tamit bon amul benn mesure de sécurité. esprit citoyen comportement citoyen c'est tout lool rek la wara a doon. ku nekk euh, jël say disposition say matuwaayu bop nee nañu saafonte bi ak euh, rofo bi dafay mën na tax jangor bi dugg ñu donc ñu éviter yoyu euh, dem beeg dikk bi ñu xool aussi lépp loo xam du farata ñu téye suñuy tànk hmm? c'est ça et puis ñaax njaboot gi tamit li ñu war ñun à l'échelle individuelle bon collectivement aussi ñu observer ko. nous sommes en face d'un ennemi un adversaire li ñu def mooy mobiliser wu xeex ak moom daan ko jàll ci li ci des buñ bàyyee ko rek mu daan parce que France ñu ngi ne Italie ñu ngi ne Espagne ñu ngi ne Angleterre Europe presque ñëpp a ngi tëju te ñooñu ëpp ay moyens mais ñu organiser organiser wu comme ñoom rek jéem a organiser wu parce que affaire bi suy gën a law